ni muy doxee ci réew waaye nag ñi nga xam nañuy acteurs yi di magistrat yi ak askanu sénégalais kenn ku nekk am na ci part de responsabilité nañu ko jël daal di koy waxtaane ngir nag mën a trouver ay solution balay béy di way mbuus ndax li nga xam ne moo ci am dala manque de confiance bi loolee moom lu am la ba tey ci bi moom Mamadou Seck daan nay wax ne dogal yi nga xam ne magistrat yi dañu koy faral di jël maanaam décision yi ñu bari dañu koy daal di contester di vilipender di ŋàññi ñi nga xam ne ñooy magistrat yi loole nag ñi nga xam ne ñooy acteurs yi yëngatu ci wàllum yoona maanaam loole war nañu see bàyyi xel magistrat yi dañu leen di stigmatiser moo xam ci nguur gi moo xam ci pouvoir bi yàggutoo njaay am na ci ay magistrats yoo xam ne cour des comptes la ñu nekk nee nañu leen yéen ay politiciens ngeen maître Mamadou Seck bâtonnier ordre des avocats daal nay wax ne ñi nga xam ne ñooy magistrats yi maanaam acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci jëm ci wàllum yoon waru ñoo fee nekk nag naan pouvoir bi moo tax amuñu indépendance ndax kenn ku nekk dafa a ma ci lu jëm ci wàllum indépendance ma ko bazarde yéen a kaay gi de libération nee magistrat yi bu leen xajamal li nga xam ne mooy seen indépendance quotidien yor yoora ñu xëy fekk fa maître Mamadou Seck nee na magistrat yi bu baraade li nga xam ne mooy seen indépendance yéen kaay gi la Soleil ñu fekk fa njiit mi di président Macky Sall nee na justice bi danañu ko daal di défendre avec fermeté nee lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci infrastructure judiciaire yoo xam ne danañu ko taxawal diggante di Walf Fadjri nee na rentrée jëm ci wàllum santé publique waaye nag ñi nga xam na ñooy magistrat yi ŋàññi nañ bu baax li jëm ci wàllum santé publique loolee sax tax na Macky Sall daal di xundu maanaam Macky Sall maire journal bi nee na moo Macky Sall nee na nag jëluñu tem bi ngir na ñu nekk fi di ŋàññi lu jëm ci wàllum santé publique yéen kay gi du source a nee na rentrée des cours de ñi nga xam na ñooy magistrat yi li ñu bëgg nag mooy ñu daal di réformer cour des comptes andi ci ay yeesal ndax liggéey bi mën a gaaw ba pare tamit ak leeraange man cee daal di am waaye nag loolee nga xam ne mooy bëgg-bëggu magistrat yi démb wax nañu ko Macky Sall dafa lànk ba tëdd sa naaj waa ñi nga xam ne ñooy magistrat yi démb daat na ñuy wax ne ñi nga xam ne ay agent lañu ñu daat leen di tuumal yóbbu leen ci chambre de discipline dañu ko war a def xam ne lu public lay doona loolee tamit Macky Sall nee abadan du ma am yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall démb recevoir na xalif bu metti moo am ca diwaanu Kaffrine ci dëkk bii ñuy wax six kilo six kilo googe nag fa la maanaam daal di fay organiser nag li nga xam ne mooy ab festival maanaam ñu nekk fa di fecc di xumbaay di mbumbaay ak di way ak tëgg ci cyclo googe nga xam ne bërki de moo njaay la fa accident bu métte métte am nit ñu bare bari daal di fay faatoo journal bi nee na xam ne ba léegi xel yaa nga fa mu fay organiser am mbumbaay ak ab xumbaay loole nag ñaaw na lool yéen kay gi di réew mi ko di jaay ñu xëy fekk fa Alioune Tine nee na nag ma ngi woo opposition bi ak pouvoir bi ngir nag ñu daal di toog waxtaan daal di dialogue waaye nag dialogue boo xam ne bu sincère lay doona Sénégal jamono ji ma ngi ci gudd yu lëndama Aliou Tine ci journal bi di Sud Quotidien muy taalal loxo Macky Sall waaye tamit di taalal loxo Ousmane Sonko yéen kaay gi di évidence nee na confrontation inévitable diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall maanaam jàppante mënut a ñàkk évidence mooy wax yéen kaay gi di La Tribune nee na en tout cas li am ba des daal maanaam jàppante yu tar mën naa am diggante waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Ousmane Sonko yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko bërki démb nee na def na li nga xam ne mooy testament pare na pour xeex experts ñoom nag nee nañu seen juróom-ñaari mètre percale jënd nañ ko ba pare seen càngaay ngir nag jàkkaarloog Ousmane Sonko ki nga xam ne mooy Alioune Badara Ly bu Koungheul nee na Ousmane Sonko bu bëggee guerre dina ko am Thérèse Faye nee na Ousmane Sonko danañu ko atte yéene kaay gi di ko di jaay ñu xëy fekk fa waa Pastef Casamance ñoom nag ñoo ngi dànkaafoo nee nañu nag bu ñu jàppee datu procès bi ñu war a atte Ousmane rek ñoom nañ ko ay avocat ma ñoo ngi sàkku ab non-lieu yéen a gi di réew mi ko di jaay xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réew Burkina Faso journal bi nee na démb kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Burkina Faso ñoom nee nañu bëggatuñoo gis armée française ci Burkina Faso may nañu leen ab délai benn weer ngir ñu génn foofe yéen a kaay gi di la sax xëy duñu xibaar naan ñoo am na ñeente étudiants yoo xam ne université Cheikh Anta Diop mu Ndakaaru fa la ñuy la ñu yore a kaay gi di sunu ñu xëy fekk fa site site nee na pare